bis bi de moom lañ doon ñaan yàlla jaboot ju nekk boo sañoon dund ba muur sa doom yóbbu ko mu sëyi nga laawa bu ma gàccaal ndax la nga nekkoon lépp lii ma ko gën a dund ba dugg sa néegu sëy ñaan yàlla def fa lu rafet wax fa lu rafet sëy sëy bu rafet ndax askan wii nga bokk de sëy rek lañ xam dañuy sëy ba dee. nga daana ko bu baax a baax a baax te nit ki fu mu fuñ ko dugal rek dañoo am foofa yaakaar wala ñu am confiance sa kañ koy jox am na yaakaar ci yow lool jox la ndax loolu lu dul sëy rek nag sëyee ko sëyee ko gën te sëyee dëgg nag leneen dinaa la ko xamal lii ma leen gisa woon ci sa appartement bee nga di ko solo fu tubay gën a dangee nga ñaf ko ca foo boo di gën a eh, daggee ca kaw nga nga nga riig ko ca na dakk jeet nga da ngay sëy te xarit yi na dakk na sax jëkkër ji doon sa xarit man mii sax man nga maa bañ boole ci say xarit sa jëkkër ji na la doy sëkk xarit doy na bëpp nag. mu la lii joo mu la lii la. mën <laughs> <laughs> croyais vivre mais c'était qu'un rêve. donc. Euh, kay da nga doon gént. gént bu bon def. kaa la def jaaxal nga ma daal euh, mais bon ana Aïcha. génn. Dieng. ñoo ànd moom nga soriwul. ok. Euh, tu sais. tabaski bi si des bëreetul te man daam lu ma war quoi en fait bon dama bëggoon xam ñaata moo des ci compte bi ñu séddoo ko. séddoo la. on s'était la veille de la tabaski non. ne ñaata moo des ci compte bi. je pas mais xam naa ne matul trois cent mille. yow Tito Fudo ma ak ñi fi ñëw ñëpp. ak ñi ma fi indi ñëpp. yow fii ñi fi ñëw rek ki ci gën a ndaw rek laa ba muy dem lim fi ba ëpp na trois cent mille. je sais ci borom xar ba ma dem xooli xar yi sama yaay laa bëggal xar mi may sonal. d'accord dafa lu gaaw man je pense que ça xaaral takk sama jaaro yi ñu dem bëri nga problème trop trop trop trop trop je te sama pochette bi sama nekk ñu dem Kale yii rek kale Ouest Foire ren moom foog ma am kale boo xamante su ma jaayee kar ba ma iri ko dugal ma ci néeg yooyu noonu taal seen yooyu noonu foog ma changer air daal changer climatisation aération laal si kale Dakar yi ci kale Ouest-Foire ma lii rek yoo am na oto bële waaw ren kay laal kaale dem soirée bombage yooyu dem ay yooyu noonu foog nga jël ci waaw waaw ah man mosuma jaayee fi laa ñëw suñ fi yàlla bàyyi incha allah. daral wa aleykum salaam. ma jaala kër. jaajëf waaw. am na Sadio Krépin mu ngi nii Krépin. bii mooy Krépin. bii bu ndaw soxla woo bii. yow moom diriyan ki la nga àndal. kii du laal yi sax. Krépin. si la nekk kii mooy Ronaldo. Mohamed Salah. bii mooy Sadio Mané. Sadio man bii laa bëgg yaw bii nga bëgg. nu muy ma jox la. bi lu muy jar. bi jëla quatre cent cinquante mille. kii mooy Mohamed Salah. waaw ah, xoolal yoruñu quatre cent cinquante mille. ah góor yow noppil yow noppil yow sa wax mu ngi bëgg a bëri yow gunge rek nga def yow nekk yow amuloo faam eh, amuloo wakkaal. Eh. bàyyi ma ma kale bi waay bàyyi ma wax ak kale bi waay. Eh, waaye loolu dafa cher wàññi ko wax na la dëgg. waa mbir cher ak yooyu yëpp amul solo. dafa cher wuy ma yow wuy ma. da xam nga ñoo far est-ce que duñ bàyyi wax xëy sa dafa teel ma invité la. invité. ñu bàyyi bii nii sax. waaw man après xam naa fii ak suba wala gannaaw suba naa ñëw jënd si. yee yow ban fii rek boo jàddee nii. Hmm. étage bu bi jàkkaarloo marché bi. étage bu weer bi. waaw jàkkaarloo. marché bi marché bi. problème. xam nooy def. man ma dox la foofu noonu ngoon da ngay ñëw naan si ataaya. daral bi fii man maa nekk capitaine bi fii. ah bon. Ah, ngoon naan si ataaya. incha allah. bu tardé de jëlal sama 77. ah xam nga 77. boo réeree ma mën laa teg taw. te góor noppil yow iñaan nga waay. yow lii laa la nii. yow lan la. 77. 77. o. o. o. waaw o. 1. 2. 5. 1. man pël bu jaar laa rek. waaw oh. kale bi ma ko irigé ñaari at may jaay fii le soir am kale bu ma iri defal bu ma mbëkk soo du ma mun iri kale bi baax. waaw yow Eva. tayal bi fu mu toll suñu ñaw yi. nee nga mu pare. tayal yi loolu lañ day gëm noonu dañuy jël àddinaay ñaw bu desee lu dul ñaw ñiy dawloo client yi. man de dama lay poñe dagg say wëñ nga fit bi rek baax yow rek. mais ba fayoo ko lépp. man aw ma ak yow ñu lu loo kees loo nga mel ni koy jiwoo ñoom rek. man laajte woon sama laajte sama CV. ay 35 dox laay am ci digg bi Fuuta par an bokk noo ci kare yu mool yi may doxal. salaam. man góor dégg la góor dégg. waaw ki ki mun ko bu baax. ba kay naa koy xuloo. cen bi daan boobu noonu amul. gàllankoor xaw ma ñoom rek diw. bàyyi jaamur. waa Eva foo jëlee bi ah yow bii sama nit la. yow bëggante lu neex. waaw loxo bëggante lu am jom. lool moom la tooñati. jot waruma tooñ man kilifa laa fii ci kër bi di ñëw fii di dokaan di génne kaalis di joxe. man maay capitaine u bi dañ ma takkal tey barasa capitaine u bi. daral bi <laughs> ci àdduna. maay seen capitaine. xaaral ma dindi la taxaw. tàng na xam nga ñun pël yi suñ bëree kaalis du ñuy kii du ñuy tàng kaalis bi mooy kii ci yaram. laay la xoolal da ngaa tàng. te xam nga yow pël moom soow la xam Aïcha la eh, naa. ni jigéen sa xarit bi foog ñu teral. xam nga pël soow la xam. bilaay. ko soow. bilaay soow pulo jéeri borom nag. bëgg naa ko dama laa gis kontaan. yaay maa la taal. ah nu bi fu mu nii mu ngi def nii. <laughs> mu ngi def nag nii nii. su ma kool bi mu ngi fecc fecc boobu kale yi daan fecc daaru jol duugi gis nga ah duugi duugi suma kool bi fi mu nekk nii mu ngi def. dama bëgg sama xol. bilaay waaye seen bi naan bi yem na ma xamul man jamonoy tubaab la Ah, ay wuuteen clan daal fekk si yëpp maa ko yëngal daal Jolof dama daan yéeg concert rap gars yi kontaan old school ngay wax xamul ni lii tax ma bëgg leen waaye naa teg ci place am xamul boppam billaay kii dax lu xew billaay billaay sat bi moom gars fédération des éleveurs de foot ñoom ko jox mu ah. takkal ma capitaine bi Barassa moo tax gis na hmm. xanaa ay million la ci def waaye ëpp na million ay trente cinq quatre vingt dix neuf cent poussière yooyu. am naa na laa tànk. kaas bii da ngay def nii sax di seet. di gis sa bopp waaye fële nii gel fuute yi ay lekket lay lay may ay lekket yooyu noonu mu toj. yooyu cosaan la tamit kaas bi dañ ciy sinap sax. dégg naa après ci sinap la am jom. bilaay wala. Ah. àdduna. bi soo bi soo koy naan da ngay wàcc suuf. ay baala baala baala ma ne soo bii faaw ma wàcc suuf. naa def. soo bi dama bugg am comme tey Aïcha. ah boo ko dee sangoo de nga xees. am nga nii tey sax. billaay am naa nañ la topp de. kay moom. tey kay am na ko. waaw génn naa ko. waaw mu lay nelaw. tey am na ko. léegi moom am na ko. tey moom. nga kii ngi nelaw de. loo ko jox loo ko jox ba nii kii mu ni ko rab nii kaa jox dara. dina ci profité kon gis nga tim classe gi xaalis dërëm kese la. lan pël nga jël xaalisam fii mu def la dara. ñii. ni ñu nii di du ñu profité xool lan moo fi ne.

kër bi aljana la kër bi kër bi aljana la. kër gaa ngi capitaine jaral borom nag meew. kër bi borom kali bi ñuul bi weex. lan. billaay bu ko bi na de. non bi nag mbaxane bi ci la affaire yi nekk. Ah. waaw yoro yoro bi nekk ci yoonu dooji bi. Mm. ah boo passé Linguère nga jàpp noonu dem dooji. am na sëriñ bu mag bu nekk foofu kooku mu ne ma soo buggee nekk capitaine fédération nationale organisation des unions des éleveurs. Ah. foog nga cool mbaxane bi doo ko summi ba kar yëpp jàpp te mu sama may leen xaalis. Mm. kale yi foog ma may leen xaalis. man léegi dam bindaan boobu dimbali yàpp xam man kaale yi may kaale yi may. booy jëkkër de kaale yi may kat. Ah. suba nga ñëw jël ci kaar bu la neex. Ah? xanaa maa koy fay. man la capitaine fédération internationale des unions daral éleveurs Sénégal. maa ngi jëm. maa mu ñëw la boppam suñu doomu may boobu noonu. ah yow Aïcha xay yàlla bu maa ngi dem yaa ngi dem ko suba waay waa mu ni seen bi daa boobu noonu seen gën naa ko nag waaye bés na wax waaw kii soxna na war naa diwoo sama sol kaas bi dara ma kaas. bu paree kay dañ koy kii wér na ma la dara maa civilisé gi maa civilisé nag waaye lii la de nit boo yoree sa saak koy vérifié. donc kon boo ko def 500000 ci loolu. waaw. suba ma jëlee yàlla bu ko yëg nag découragé. yu dégg boo mu ne la nga ñëw jël sa bu ko jël. <laughs> xaaral ma ko sax numéro bi enregistré naa ko bu baax. Ah. dëgg moom ngoon moom. rien à dire fayeeku nañ ñetti douze ñu mètre su ma ne yow rek laa bëgg gëm ma ah. su ma ne yow rek yaa fi ne ay gëm ma ah.